hadara hadara ko hadara alhaji umar ko hadara ɓeɗen enen konndinde enen ndenan so mbeɗen ɗo oɗon ɗo somi ala ɗo oɗon ɗo ƴeeƴe hewde juulel so ene waɗa ɗum tawa yii ɗum ko mawko koye mawko o yimɓe ɗe yaha wone geɗe ko anndude onon ɗo hay hunde mankata ɗo hay hunde mankani alhamdulillahi rabbil alamin calmini mawɓe mawɓe wonɓe ɗo ɓe mawɓe hadara o ara wownoɓe arde ɓe somi naati e limde tan koda mo jejjita sikka komi kono kono fo oɗon nana ko kalanmi ko jetti on no feewi hadara o ko hadara rasul sallllahu alayhi wa sallam galle o ko galle alayhi wa sallam kono se omar lomtimo kanko alhamdulillahi rabbil alamin yéen ndaw bi yéen ndañ bi de moo ëpp yéen ndañ bi de moo ëpp moo ëpp umitul hanj ko hendiya ayiti rasul sallallahu alayhi wa sallam ndañ bi de ma alhamdulillahi rabbil alamin koy laa wollu ndañ bi de ma gonɗen jarama eh, almadda baal mm-hmm. ari caggal futuro he ɓe alhamdulillah no mbimi naane ni islam jibinaani gooto no mbimi naane ni hadara cheikh umar eh, wonaa gooto jogii e kono won teskinɓe heen so tawii ngaraani ade yolde mumen woowteede ma won ko yimɓe ƴeewaa seeɗa kono alhamdulillah yimɓe makko e yidde modental ngal ɗo wonno kokon no wumi hande ko cote d'ivoire o ari mbiɗa mbiya ko bisimilla e kanko e heddi ko wonɓe ɗon ɓe fof naane abdoul diallo o yimino ɗo darul habibi o kulubuna tahwaha e jonde nden yaajani jonde nden ko toksere wonno jonde nden ndefaɗani ni jonde annabi sallllahu alayhi wa sallam nde cheikh oumar hebli nden mbaɗaɗa nden raɓitta kono waktu o ko gasowo eɓe jimtana en darul habibi kulubuna tahwaha qasida mo ganduɗa so yimama natazakkaru cheikhna wa seyidina alhaji abdoul asis sy ciftoraago so tawii yimɓe ɓe haalaama sibu ɓam nanoowo arab emo nanataa fof ene anndi sawru makko kam sawru o ko kañi so a heɗiima sawru aɗa werko e ndeer maaɗa hay so a nantaa ko haala ko qasiido o waɗi ɗum annabi sallllahu alayhi wa sallam qasiido o waɗi ɗum ko alfa hachimien fi cheikh oumar jahanno en ene fof kono e, e annabi sallllahu alayhi wa sallam lomtii en won waɗi qasiido o Kon heri mwenye oksi, se, se, disi ni abdul azisi. Fam kwi. Chukwen le mwenye mwenye mwenye kwenye nan, nan ler, nan ler, nwe. Ke portable. Nan ler portable mwenye. Dar al-hamid, kulu mna tahwa. Yam jiman edu, kaya funyari alfa hasmi, an yatunan hadar rasul sallallahu alaihi wa sallam, a tifkar wurin da sin abdul azisi. Bismillah. Am na tasida bu ñuy dégg sànq mu ko doon wax. mooy daarul habibi qulubuna tahwaha mu ne dégg nañ ko ku nekk dégg na ko ñu bëri dañuy yaakaar ne sax ab sëñ Abdou Aziz moo ko def ndax nu ko buggee woon ndax asida bi dafa am faayida asida bi nag ku ko def mooy Alpha Hashim doomu Cheikh Umar la bi mu génnee Nigéria mu réer si àll bi ñëw si benn garab sonn xamatul fu mu jëm toog ñaari ñaari fan lekkul mu nelaw xaw a janeer gis yonent bi sallallahu alayhi wa ñëw si moom jox ko verre boo xamee ne meew moo si nekk mu ne mu naan meew bi toog na ñaari fan lekkul bi mu naanee meew bi mu ne mu noon na toog ba yowmal qiyaamati du lekk maratul xiibatul lépp dañ si moom ñu ne sang bi bu mu ko feeñoo ne ko yow looy def fii loo tardé fii jógal nga dem fekk si ma Madina bi mu yeewoo rek moom Alpha Hashimiw mu ne irhal li taybata laa ta umma siwaaha yow Alpha Hashimiw jógal nga dem léegi léegi léegi fan nga jëm mu ne demal xono tayba soo demee tayba soo eggee sooy dem bul xalaat dara bul yóbbal man maay sa yóbbal maay sa àndandoo laa taxum ma siwaaha bul xalaat leneen bul xool tereen soo fa demee fa asaaka an tahza bi ru'yati taaha soo fa eggee soo eggee su la yàlla dimbale ba nga egg tay asaa bi fii dañ koy wax asaa mun na mais asaa an fii tahqiq la an tahza bi ru'yati soo demee rek di nga gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo la wax ñëwal soo ñëwee di nga ma gis te gis yonent bi mooy martaba bu gën a rëy bi wali yu am soo ko ame am nga lépp mu ne fa ida talaha soo eggee Médine bul wuti ndox bul wuti njaati gi iktahil na nga euh, euh, nga def ko comme tusngal nga tusngaloo ko say bët mu ne soo ko defee huwa ismudul wa huwa jalaha moom mooy raxas say bët mooy sa tusngalu bët moom moo koy mooy dindi lënt bu si nekkoon yëpp moom moo koy dindi mu ne daarul xana daybatu boobu moom nag mooy kër bi nga xamee ne këru mbégte la këru bànneex la këru dal xel la mu ne fii xel xina am na si biir tayba soo fa duggee di nga am euh, koom bu bëri boo xamee ne du jeex koom nag ku ñu nit ñi dañu yaakaar ku ñàkk rek mooy ku ñàkk alal ku am yonent bi am nga lépp ndax ku am yonent bi am nga yàlla soo amee yàlla am nga lépp dootu doo def mu ne kadar mun a lépp lu nga doon mébét soo eggee Medine di nga ko am daarul habibi fan mooy foofu mooy sama kër soppe xulubu naa suñu xol ñun ñëpp taxawaaha mu ngi sopp bërëb boobu lii xasida bi nii la demee baat boo si jël dafa neex dem na ba mu nekk ay lu mat ñaar fukki bayit bu xasida boo si jël Thierno nag dafa xool ñu waxtaan ko ndax nit ñi gën ko xam ñu ngi koy dégg si portable yi mais xamuñu ko foo ko déggee bul coupé bàyyi ba mu dem message nga nga bañ ko coupé ndax yaa ngi lay ñu yaa ngi yaa ngi yaa ngi kañ yonent bi yaa ngi déglu bàkk yonent bi te déglu bàkk yonent mel ni yaa ngi déglu alxuraan kon yàlla nañu yàlla may barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam